ba tey sëñ Tuubaa nee na am na ñoo xam ne seenu waru mi ngi ci ami mi ngi amee ci aj makka te loolu mooy ki nga xam ne day dem ci buur yi di alal ci ñoom di ko yóbbu màkka nga xam ne bu demee ci buur yi dañ fay wax bañ jox leen alal ngir ñu yóbbu leen màkka rek waxtu wu nag muy dem ci ñoom te lu ñu ko jox lépp alal ju aram la ci biir loolu sax julli farata mënu koo raw mu far alku saa su demee ba ñëw ci itam di ci damu jàpp ne gëne na ko ñi demut jàpp ne bu ëllëgee dana bari la lool te du am lu dul ay musiba ëllëg ndax xamul ne bu toogoon te fa cab xolam bu ma ko yàlla manloo ma def ko moo gën a sell